Euh, notre nouveau euh, président di ki nga de nekk mu di Bassirou Diomaye Diakhar euh, na li nga xam nekk mu di fonction ni modi le deux xam nekk mu di de démb na justement première sortie voilà comme premier discours à la nation bi nga xam ne Sénégalais a di ki li n'a xam modi le 3 avril alors justement sur la forme naka ndaa analyser li nga xam modi justement peut-être le discours sur la forme euh, ñu ne am aussi changement drapeau euh, marron euh, marron beige bi jóge na si et tant d'autres et tant d'autres sur la forme naka ndaa di analyser li nga xam ne justement ce discours. en tout cas man ci ci ci ci li may amna am ay détails yo xam mom duma hmm. du ci attardé wu ay marron beige chocolat yooyu. peut-être da am ñu ko doon gis man j'avais pas vu ça. mais j'ai toujours vu que y a les sceaux de la République les sceaux de la République ça veut dire les symboles de la République. Hmm. Euh, Boy Lou, Bassir Diomaye Faye trois discours la tenir bi a gagné élection le lendemain le def discours après ça a suscité beaucoup de débats ci détails hmm. ci nan a waxee ak nu solo mais ci moment boobu ak contexte bi euh, il faut se souvenir que y a un moment, il ci weeru koor lañ ko jàpp dugal ko ci kaso bi. ren ci weeru koor gi yàlla def na mu nekk ci candidat bi muy dugg daaw ci kaso bi ku ko waxoon ni di nga nekk président Sénégal wala di nga nekk candidat du ko gëm te kenn séntuwu ko ci woon. Hmm. yàlla ci ay mbiram ci biir koor gi ci biir kaso bi la nekkee candidat ci biir koor bi ci biir kaso bi la campagne bi démarré li mu campagne juróom-benn fan la campagne. six ci koor gi toujours nekk président ci koor gi. génn ak pression bobu yep mu am ak euphorie bi ak émotion bi euh, je crois que son premier discours am contenu et puis euh, bobu du état ça c'est le hein, président de la coalition Diomay, qui parle après ñu dem ci beneen phase sur son investiture euh, mu a ak prestance avec tous les attributs d'un chef d'État d'un président montrer le vrai débat que lui il na yëre bi ñu ko solal je crois que c'était invité et puis c'était un moment solennel bu au Sénégal on a une république qui est debout malgré une contorsion démocratique malgré on a fait une transition démocratique pour moi c'est ce qu'il faudra d'abord retenir mm. et dans cette transition démocratique ni Ablaye Wade defee une passation ak ab ak euh, mm. avec Sall Macky Sall gunge ko mu génn pale bi dem non lañ defee digënté mak ak Diomaye ak Macky Sall suba ñu def ko digënté fait ak kenen ki koy outu té transition démocratique nekk lu am solo ñu que ni que système démocratique Sénégal amna maturité ak responsabilité quand il faut voter les gens vont voter bal du tàq sagar du xeeñ donc bu que tout est normal que ñu ngi une ci démocratie Nous suñ ay institution. on va assister à des transitions démocratiques pas comme dans les autres pays africains où euh, on est obligé de prendre des armes pour déloger un président, etc. Donc le Sénégal a montré une bonne, belle leçon de démocratie. Le Sénégal a restauré son image de pays de vitrine démocratique en Afrique. Ensuite, euh, euh, dans la forme comme dans le fond, ce n'était plus Bassirou Diomaye président de Diomaye président ou d'une coalition, mais de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, avec tous les moyens de l'État et tous les attributs de l'État. Donc, on a investi. Ensuite, nous avons il a fait un discours globalement il est revenu sur cette vision parce que euh, mu discours bu concis et précis et très structuré ou sur les grandes questions yi nga xamni sénégalais don nañ ko ci xaar am ci mais discours bu nek contexte Le discours bi. contexte parce que discours le discours d'investiture il ñu ba discours premier discours en tant que président où il vient euh, rassurer les partenaires internationaux euh, wane le Sénégal intégration africaine CDAO, d'autant plus avec y président yi nga qui la cartographie diplomatique du Sénégal avec la position géostratégique du Sénégal que le Sénégal peut jouer encore euh, en lien avec euh, les présidents putschistes euh, de la Guinée et du Burkina en rupture de banc avec la CEDEAO il peut être une chance pour l'Afrique Nous une croix de retransmission entre les présidents et ak li pour nous liguer dans une intégration mais aussi il a parlé de souveraineté, c'est-à-dire même dans les partenariats, dans la coopération internationale et les relations internationales, que Mounek, relation au Naoulé, où le Sénégal va conserver ses intérêts. C'est ce que toujours les Sénégalais ont dit. Mais Benenbi, il a parlé d'espérance. Mm. Il a parlé de la jeunesse, il a rendu hommage aux, aux, victimes, il a rendu hommage à, toutes ces personnes qui ont perdu leur vie à cause euh, de ce projet politique, mais aussi au-delà même de ces personnes, les anciennes générations qui se sont battues pour construire une démocratie au Sénégal. Fofonak, petit discours contexte 3 avril. C'est mm. important parce que La corruption, elle revient. Chaque discours, il te parle de la lutte mm. contre la corruption. Parce que tout simplement, ce qu'on va dire, c'est que beaucoup de gens pourquoi bah, exactement dafa jàpp ni la corruption gagne de plus en plus. oui mais hein. mooy góomu le Sénégal sàcc gi Sénégal gi alalu askan wi loolu mooy góomu le Sénégal. maintenant il faut mon am de l'audace et du courage et je considère que ci li mu jot a dund ak fi mu a jaar. préparer, préparé pour mon am courage Et l'audace audace pour mon une volonté politique réelle de régler ce problème maintenant au-delà de cette volonté Il faut affirmer dans son discours mu ne dina lutter contre la corruption et puis nan lay def nga commencé dégg li jëm ci walu alalu askan bi mooy hmm. la redevabilité D'abord, li nga xamni moy rapport IGE rapport OFNAC rapport Cour des comptes ñu publier ko parce que dañ doon tok ñu tok trois ans rapport IGE du guen rapport IGE wara guen Cour des comptes guen déjà mu nekk li ñi wax de la redevabilité et de la bonne gouvernance donc balé boobu muy wax balé bi bale jubal ak jubbanti léegi nag ci jubal gi mu ne stratégie la après on verra ndax seen stratégie efficace ou pas c'est-à-dire ñëw ne ñi nga xam ni ñoom jàpp nañ xam nañ ni dañoo sàcc alalu réew mi nañ ñëw ci njekk rek ñu delloo ko buñ ko delloowul ci njekk nag ñu doog a def li nga xam ni mooy euh, la pour ou essai mais loolu dafa benn euh, polémique. Hmm. nañ ñëw delloo ko si njëkk. mën nañ sax jël jox leen ab euh, ab pàcc si luñ delloo exactement. oui oui oui mais loolu dafa suscité polémique. oui mais mais moo tax Bassirou war na mënewu par rapport ak euh, ces choses yi nga xam ni itam yoon ak wàllu yoonal soo moo ko war daal di war a mën a. oui mais c'est-à-dire xam nga. moi je disais que ñoo xam ne ay inspecteur impôt lañ ak domaine euh, bu boo doon daw ku nekk si impôt far yàlla mu ñëw nekk président et puis amna 17 ans de carrière mm. donc am na expérience en matière de recouvrement mm. parfois nga dem ci ko xamni dafa am fraude fiscale ya nga dégg mu ngi lay wax euh, li nga xamni moy mooy yi nga xamni ne def euh, lu jëm ci walu fraude fiscale et cetera mais c'est une stratégie est-ce que da ngay ñëw jëli yat bi dóor nit ñi comme Macky Sall nim mu wala ñu jog rek wuub sàccee sàccee wuub parfois sax dinañu yuuxu sacc sax ko xamni won peut-être du sàcc mm. mais tay est-ce que nga jël nit tej ko ci kasso bi am na ñoo xam ñoo ngi ci kase bi dañu encaissé ay milliards wala ay millions nga dem tëj len juróom-benn weer après ñu nos xaas bi xaas bi seey ici l'objectif moy récupérer xaaliss bi wala moy tëj nit ñi donc stratégie la parce que tu démé ci procédure ça va être coûteux tu vas prendre des avocats tu vas prendre des commissions rogatoires tu vas faire des procès di nga yegg di nga tu vas mettre de l'argent encore pour trouver de l'argent. li est ce que bonne stratégie nga mëna tek ci li wax nga dégg mu ne la prête en matière de blanchiment d'argent, etc. yow dañ lay poste mais comme comme ak alal bi ngay ci marché yeeg ci yenn alal ci yenn def tour. parfois sax def sa tour jabar. Hmm. da ngay dem sax premier hmm. premier jabar sax mu nga ci genre donc dans la stratégie il demande tout simplement ci ñi nga état am tous les moyens tous les instruments d'enquête

dan bi aussi dina la dal vaut mieux nga sauver sa peau moy nga ñëw nga yolé wax ni effectivement alal bi nga yore diw moko mom su boba li président a dit dañuy def amnistie manam yow kenn du la topp alal ji nga fexé ñu indi ko dina la ci neexal donc mu ngi pousser motiver nit yi pour ñu mëna donc l'objectif aujourd'hui c'est une stratégie pour faire des recouvrements voilà, il devrait venir faire une chasse aux sorcières donc du hôtel non pour moi, pour du du hôtel pour c'est une stratégie mûrement réfléchie euh, parce que même au Canada système Bob lañ mettre en place ça, permet de motiver les gens à à, venir dénoncer mm. euh, les trucs de de gouvernance Benem, il a parlé de la protection des lanceurs d'alerte parce que nous, ñoom seen Ben, Ousmane Sonko a été lanceur d'alerte Nek ci administration gis yenn pratique nga dénoncer ko. ñu dàq léegi nag est-ce que bu ëllëgee kenn ku gis benn pratique te nekk ci ci ci fonction publique locale wala fonction publique wala nga nekk ci administration li nga def da ko def ngir sa réew mais boo demoon ba nar koo def mu leeral nañ lay dàq doo ko def mm. donc bu fekkee carne na aar nañ leen protéger leen moi je trouve que euh, son véritable combat doit être la lutte contre la corruption sous toutes ses formes parce que dem na ba ancré ci Sénégal euh, alkaati bi sax su la jàppee yaa ngi xalaat ban taw nga ko war a jox wala ban tutaaw nga ko war a glissé benn service administratif booy def yaa ngi xool ban këyit ngay xaalis ngay neexal euh, moodu moodu yi bu ñu soxlaa légaliser seen extrait affaires étrangères ci bunt bi da ngay gis ñu sol costume parce que lenteur administrative bi nekk na un lit pour pour pour la corruption voilà donc c'est un grand chantier et pour man tout le monde doit l'accompagner on doit adopter des changements de comportement mm. et, et puis participer quand même à la lutte contre la, la malgouvernance mm. alors mu nekk lu am solo exactement démb ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye euh, kaddu yi nga xam ne itam yëkki na ko fa